rencontre, c'était justement parce que ça fait un bon bout de temps. Vraiment, depuis le début de Covid, on n'a pas eu la chance de se rencontrer, comme nous l'avons fait, nous, bëri CATB, euh, à Midna. Donc, appel Libéry, Khultou Bibéry, Manekon, nous avons organisé un débat pour nous, vraiment, nous avons gisante, safante, waxtan, euh, xool nag Medina nu ñu koy doxalee bi ma ñëwee fii nag moom sama yaram dafa daw fekk naa euh, coordonnateur ñoom góor gi ak ñoom Fatou Wade ñi teg sama taxaw sama wet xale yëpp ak militant yëpp vraiment ñu defar affaire bi comme ni ko xale di waxee ba mu baax ma kontaan ci loolu sama yaram daw frustration mooy loolu rek ñoom dañ mën a moon rek dañ may bëgg dama gis saa su ne yàlla dogal président Macky Sall sas ma liggéey boo xam ni vraiment euh, dafa doy waar man dafa naan bi ma jógee impôt liggéey bi day wàññeeku te yoo la ma doon def impôt li may def fii deux fois plus la donc loolu moo tax may gëj yenn saay yi biir Médina mais xam ngeen nii weekend bu nekk maa ngi fi waaye loolu du doy parce que militant euh, CATB tabarfakal la Euh, euh, euh, ñu koy xeeb waaye xaw nañoo sakkan takku ba nga xam ni mënu ma gis ñëpp saa su ne kon nag lu mel nii dafay baax yenn saa ñu organiser tey débat yenn saa ñu organiser conférence yu mel nii nit ñi wax waxtaan seen biir ñu posé ma ay question ma tontu loolu moo waral jotaay. Seydou Gueye amuñu amuñu problème parce que ñun ñaar ñëpp président Macky Sall la ñuy liggéeyal li li si am mooy te loolu dinañ ko wax si kanam dañu jëm si échéance yoo xam ne yu doy waar la. te échéance bu amee il faut fa am kenn ku jiitu waa Médina nag ñoo choisir kuy jiitu ñun et je le dis nous nous sommes à la candidature parce que nee nañ dañ dem biir benn bokk yaakaar ñu xool le meilleur profil pour la Médina parce que nag bu ñu nekkul benn on risque de se disloquer et si on disloque les forces il est évident que euh, euh, euh, suñu adversaire daf ñu gagné. non non non l'APR c'est la maison naturelle de la CATB bu mun am xuloo mun am xeex ñun amuñu benn problème fii boo duggee boo gesto di nga fi gis waa waa APR yu bëri. kon on a aucun problème amuñu benn problème